Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans ce numéro 110 de Sud Éducation en compagnie de Mariem. Bonjour Mariem. Bonjour Aïda. Mariem, de quoi allons-nous parler aujourd'hui eh bien, pour cette dernière émission de l'année, Aïda, nous allons parler des résolutions que pourraient prendre les parents pour la nouvelle année. Tout naturellement, Mariem, je vais te demander quelle est la résolution phare que tu conseillerais aux parents. Et bien entendu, après, tu nous parles Bon, alors après, euh, <laughs> après mûre réflexion, je dirais que la résolution phare, la plus importante de toutes, pourrait être euh, de passer plus de temps avec ses enfants, parce que je pense que, euh, certes, l'année a été une année particulière où euh, on s'est retrouvé un petit peu plus en famille, où on s'est retrouvé un petit peu plus à la maison, et donc euh, beaucoup de parents d'ailleurs se sont rendus compte qu'ils passaient à côté de bien des choses en ne restant pas avec leurs enfants, en leur, euh, sur leurs écrans, sur les réseaux sociaux, et donc euh, consacrer moins de temps à leur progéniture, ils se sont rendus compte qu'ils passaient à côté d'eux et qu'il y a plein de choses qu'ils ne savaient pas de leurs enfants. Euh, je crois que après, a été un peu libéré de nos maisons, euh, de mauvaises habitudes ont été reprises et qu'il faut essayer de, revenir un petit peu aux fondamentaux. Et ce qui est fondamental dans l'éducation d'un enfant, c'est le avec lui, que de jouer avec lui et que d'imaginer des activités avec lui, que ce soit des sorties ou des choses que l'on fait à la maison et qui ne demandent pas d'investissement. Euh, autrement, euh, on peut revenir sur d'autres fondamentaux, d'autres bases euh, que nous avons euh, tellement abordées dans de nombreuses émissions, euh, toi et moi, c'est-à-dire ne pas crier sur les enfants. Alors là, j'ai envie de dire moins crier sur les enfants pour que la résolution soit plus facile à suivre, parce que, comme je l'ai si souvent dit, lorsqu'on crie sur un enfant, l'enfant n'entend pas le contenu du discours, l'enfant n'entend que le cri, et donc finalement, totalement inefficace. Euh, autre résolution, ce serait de ne plus frapper les enfants. Euh, j'ai hésité à en faire ma résolution phare parce que c'est très important de comprendre que lorsqu'on frappe un enfant, eh euh, on lui enlève beaucoup de confiance en lui et finalement pareil que le cri, euh, l'enfant ne n'entend ne, pas la raison pour laquelle on l'a frappé, il ne voit que le coup et quand il ne recommencera pas, ce n'est pas parce qu'il comprend pourquoi il ne faut pas recommencer, c'est surtout parce qu'il a peur du coup et donc euh, ce qui est intéressant dans l'éducation, c'est de transmettre du sens et c'est que donc de faire comprendre à un enfant qu'il ne faut pas toucher le feu parce que ça brûle, il ne faut pas mettre mais parce que ça peut l'électrocuter et lui faire du mal. Et donc, euh, pareil, il, ne faut, il faut bien travailler à l'école, non pas parce que sinon on va se faire taper, mais simplement parce que ça nous fait avancer. Et enfin, euh, dernière résolution, euh, qui rejoint un petit peu le plus de temps, c'est peut-être euh, aussi accorder aux, enfants plus d'activités extrascolaires parce que nous avons tendance à trop entourer nos enfants d'activités scolaires. il y a le répétiteur, il et après l'enfant n'a plus de place

des aspirations, c'est le divertissement est bon pour tout le monde, en particulier pour nos enfants. Euh, alors Mariam, justement, euh, tout au long de l'année, euh, avec les questions de nos auditeurs euh, sur euh, Facebook, etc., dans, même dans ta pratique, toi, de coach, je sais qu'il y a des parents qui ont du mal à suivre les conseils qu'on leur donne. Qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils arrivent, qu'ils ne se découragent pas et qu'ils ne se disent pas, mais on n'y arrivera jamais Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller Bon, allez, comme c'est la fin de l'année, je vais me permettre une confidence. Euh, Moi-même, en tant que maman, il m'arrive de ne pas réussir à suivre à la lettre ce que je dis parce que c'est normal. En fait, dans le processus de l'éducation, on se laisse emporter par ses émotions, on se laisse emporter par l'humeur du moment et a et par les réactions des enfants qu'on ne prévoit pas, qui sont imprévisibles et on a beau se dire je ne crierai pas, eh Et on a beau se dire je ne de manière anarchique, eh bien a je ne vais pas menacer mon enfant et puis finalement on se retrouve à les menacer quand même parce qu'on est énervé, parce qu'on a passé une mauvaise journée. Donc il ne faut pas se mettre une telle pression que finalement on devient un parent hésitant, donc un parent qui n'est plus un socle pour son enfant. Il faut euh, se donner des objectifs atteignables et je dirais une bataille à la fois, un jour à la fois. Euh, quand on a déjà réussi peut-être à moins crier euh, on réussit à ne plus sortir sortir la ceinture pour taper un enfant et peut-être juste une tape en fait qui nous échappe de temps en temps, c'est déjà moins grave que de se que, que carrément d'entrer dans la ceinture, le fil électrique parce qu'il y a des parents qui vont vraiment loin. Euh, et quand on arrive à organiser une sortie, on va dire dans le mois ou tous les deux mois, eh c'est déjà mieux que zéro sortie pour toute une année. Et quand on arrive à faire une activité, un jeu de société euh, tous les deux trois mois ou eh du tout. Donc je crois qu'il faut se fixer des objectifs atteignables et ne pas s'autoflageller. Merci Mariam pour tous ces éclairages. Je te souhaite, je vous souhaite à vous auditeurs de très bonnes fêtes et on se retrouve par la grâce de Dieu l'année prochaine. Merci Mariam. Bonne année Aïda et bonne année à tous. mbokk yi ñuy déglu asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ji suñu numéro 110 su Sud Éducation ni ñu koy defee saa su nekk maak Mariam ñoo bokk plateau bi Mariam asalaamaaleykum. aleykum salaam Aïda. Mariam loo waxtaan wi. Euh, Aïda comme at bi mi at bi mi ngi waaj a dee euh, ma xalaatoon ni suñu euh, thème mu tey mën na jëm ci wàllum li ñuy fas yéene def ak sunu ay doom ci seen wàllum éducation seen wàllum yar ci atum 2021. kon kay Mariem bu fekkee noonu la demee sama laaj bi ma lay njëkk laaj parce que xam naa ne yow moom comme affaire xale yi dafa nekk ci sa xol bu baax a baax lan nga xalaat ni moom la parent yi war a njëkk a fas yéene mu jëm ci wàllum éducation xale li nga xam ne daal moo gën a am solo pour yow. ah euh, gëstu naa ci nag euh, bu baax hésité naa tuuti itam mais euh, ci sama gis-gis li nga xamante ni moo gën a am solo li ñu wan a war a gën a fas yéene mooy euh, euh, mën a toog ak suñu ay doom di waxtaan ak ñoom di foo ak ñoom di def ay activité ak ñoom bañ topp suñu liggéey bala bañ a topp suñu euh, ay xew bañ topp nekk ci ci kanamu écran yi nekk ci suñu ay téléphone ci suñu ay ordinateur maanaam bàyyi xel ci ci am jot toog ak suñu ay doom ndaxte ci année bi sax bi bi waaj a dee gis nañu ni ak mbas mi que ni am na ay période euh, yoo xamante ni amuñu woon sax benn choix dañu toog ci suñu biir kër te am na ay waajur yu bari yoo xamante ni ci euh, ci temps boobu la ñu gis ni euh, seen i ay doom ñu ngi doon màgg te am na yu bari yu ñu doon rate ci seen éducation doom maanaam yu bari yoo xamante ni doo daan duñu ko gis dañuy dem sax ba duñu xam bu baax seen doom moo tax toog toog kër ga ak ñoom ci bi bi ñu nekkee ci temps couvre-feu bi loolu yëpp indi na que que yi Euh, gën a am ay lien gën a euh, euh, gisante ci seen biir gën a passé temps ak ak seen i ay ak seen ay doom ak seen i ay te xale yi ak seen i ay waajur léegi nag loolu la ñu war a continuer loolu la ñu war a gën a yaatal nga xamante ni ci année bi yëpp ci at bi nar a ñëw nii ñu mën a fas yéene passé temps daal ak sunu ay doom Euh, léegi loolu moom mooy di gën a am solo pour yow xam naa ne sax comme ni nga ko doon hésité nga ak yeneen yeneen yooyu nga doon hésité lan la. ah ci at mi yëpp euh, atu 2020 bi ci suñu émission yëpp am na ay thèmes yoo xamante ni euh, ñëw nañ ci ay yooni yoon euh, bi njëkk mooy te xëy na sax peut-être boobu laa waroon wax sax que ni mooy mooy bi gën a am solo mooy bañ a dóor suñu ay doom ndaxte gis nañu sax ci biir at mi que am na fii ay drame ay xale yu gaañu ndaxte dañ leen door ba ay dóor yu yu jéggi dayoo moo tax loolu tam am solo lool fas yéene bañ a doorati suñu doom waxuma sax wàññi dóor yi de waaye fas yéene bañ a dóorati metti suñu ay doom ndaxte euh, comme ni ma koy waxee mooy comme yooxu sax yooxu tam suñu doom war nañ ko bàyyi ndaxte su soo yooxoo wala soo dóoree sa doom sa doom li muy jàpp du du euh, li nga ko wax wala li nga ko tayee li muy jàpp mooy yooxu bi wala euh, dóor bi ba nga xamante ni su ko dul defati sax c'est parce que dafa ragal nga dóor ko ba nga xamante ni te ñun li ñu bëgg ci wàllum njar mooy que suñu waxee dara suñu doom mu xam ba jàpp lu tax ñu tere ko dara waaye bañ ko def seulement parce que daf ko dafa dafa ragal ñu dóor ko ndaxte su beneen yoonee su xamee ni su ko defee kenn du ko mës a yëg dina ko def euh, euh, li ñu bëgg mooy mu bañ ko def même su wéetee nga xamante ni moom rek moom rek ak yàlla ñoo nekk du ko def ndaxte dafay xam ni loolu jaaduwul jaarul yoon te loolu nag naka lañ koy amee ci xale mooy toog di waxtaan ak moom di wax nànk ba nga xamante ni li ñuy wax dina ko dégg waaye suñ ko suñ ko koy wax di ko dóoraale wala di ko wax di ko yuuxu loolu du ko dégg moom li muy jàpp mooy dóor bi li ko mettitu dóor bi ak euh, yuuxu yi bi fas yéene aussi bañ a nekk di euh, di tere suñu doom ñu fo ndaxte am na ay waajur yu bari dañu jàpp ni am na benn at boo xamante ni su su ko seen euh, doom amee wala passé waratul fo dafa war a nekk rek di jàng di jàng di jàng wala nekk ci liggéeyu kër loolu yëpp baax na de am na solo lool sax mais aussi xale yi dañu soxla fo ñun sax mag yi dañu soxla fo moo tax at yëpp mu nekk ay xale yu am fukki at fukki at ak juróom fukki at ak juróom wala ay xale yu am juróomi at ñaari at benn at ay bébé ñun ñëpp dañu soxla fo féexal sunu xol ba pare euh, nekk ci sunu bànneex ndaxte loolu yëpp dafa am solo bu baax ci suñu développement ak euh, ci ci tam même ci wàllum jàngu xale yi aussi daf leen di indi lu bare bare Euh, Mariam euh, xam naa ne ci tout au long de l'année ci année bi yëpp laa bi ñu toogee suñu émission yi saa suñ ko defee euh, ñi si dañuy bind ci Facebook ak ñi lay woo di la laaj ak même ci sa activité yi ngay coach parents yeeg yooyu parent yu bari dañuy découragé wala xaw a daal ñoom li ngay wax yëpp conseil yu baax yi leen di jox ndigal yu baax yi leen di jox dañ koy essayer appliquer mais parfois du marché wala dañ bu ñu defee tuuti découragé wala duñ gis résultat tout que ñu mën koo commencer wala ñu mën koo jaare euh, conseil yi ngay wax pour mën ko appliquer ba am ci résultat. ah xam nga man ndigal yi may jox yëpp gaa man ci sama bopp sax xëy na mën naa ko wax tey <laughs> topp leen man ci sama bopp sax xëy parfois am na ay temps yoo xamante ni dina metti ndaxte waajur boo gis su yar doomam dina am benn moment boo xamante ni dafa sonn wala moom ci boppam dafa am dafa am ay problème am ñu ub boppam wala xale bi sax dina am benn réaction boo xamante ni moom euh, ci boppam dina ci gis boppam moom waajur bi ba nga xamante ni euh, mën nga xam li nga war a def mais doo ko def ndaxte ci moment bi dafa li li li ngay njëkk a def li ngay li ngay njëkk a ñëw mooy mooy li ñuy woowee impulsion bi du nekk réaction bu baax bi waaye nag euh, mën nañu dem maanaam di fas yéene def li nga xamante ni mën nañ ko def ñun mën nañ ko defal suñu suñu mën nañ ko def facilement maanaam par exemple su fekkente ni dañu ne du ñu dóor doom bu ñu bu ñu génni ay fil électrique wala ay ceinture di dóor suñu doom suñ ko dóoree sax xëy na mën na nekk benn tàpp bu ndaw wala su su fekkente ni euh, dañu ne dootuñu yooxooti ñu bàyyi yooxu yi nga xamante ni dafa jéggi dayoo wala loolu yëpp daal ñu def ko nànk-nànk te bañ a nekk sax naan di décourager ndaxte comme ni ma ko mësee wax ci benn émission naka la ñu mën a résumer tënk éducation ci benn benn benn wax mooy muñ na bon nag nañu muñal suñu ay doom jërëjëf Mariem euh, façon bu rafet la pour terminer année muñal suñu doom te muñalante sax ñun mhm. ñëpp muñalante euh, c'est une façon maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax def may nga ñu année bu rafet jox nga ñu ay conseils yu baax a baax euh, yàlla nañu yàlla may ñu fekkee ko ay déwén yu bari déwén yu baree bari continuer bàyyi la fi nga continuer rek di ñu wan yoon wi pour ñu yar suñu doom jërëjëf Mariem ñu bokk ko ñun ñëpp Aïda merci 你妈妈。